plus important c'est le Sénégal et le Sénégal était en danger le président a sauvé le Sénégal parce que si peut-être on n'avait pas cette décision tey aujourd'hui il y aurait des morts. vous pensez qu'il a sauvé le Sénégal absolument bi. mais les États-Unis la CEDEAO même la sous-région dañu reetaan mais mais attends même même yooyu yëpp après aujourd'hui loo mais au moins on sait aujourd'hui que nous sommes sur la bonne direction le PDS aussi son groupe aussi le PDS aussi personne ne peut l'histoire l'effacer dans cette l'histoire politique du Sénégal posé nañu ay acte acte il faut ñu déglu ko le PDS n'a pas voulu aller dans la rue le PDS a voulu opter pour une position est la rue non pas du tout pas du tout j'estime que de, de sage mais j'estime que mais ñi ñeneen ñi jël position dem ci conseil constitutionnel bu ñu defoon loolu rek yem ci benn bakkan du ci dee conseil constitutionnel def na position bu nga xam ne on n'avait kon benn bakkan du ci de du posture yooyu la ñu war a ñëw xam ne suñu démocratie avancé na toll na fa ma tollaay ñun homme politique yi ñoo war a élevé wu ak suñu démocratie. Mm-hmm. je j'étais dans une maa ngi woon ci benn cérémonie d'inauguration d'une église à Kaffrine l'évêque de de Kaolack disait devant nous oui le, le, la démocratie sénégalaise est malade de ses hommes il faut que nous tirions le son de ça. c'est pas une mhm. critique négative bu ñu tël nii rek moi je me mets en remets en. il a dit ça devant vous. oui oui je me remets à ce qui se passe. aux hommes politiques. oui de manière générale il faut que ñu xam ni suñu intérêt yi Sénégal a ko et loolu laa man la gën a nawee ci président. mais dans cette affaire on dit nawee ci président Macky Sall. c'est-à-dire que devant toute situation il dit mettons le Sénégal au-dessus de tout ça et regardons l'avenir Et c'est ça la grandeur d'un homme politique. Et Macky Sall est, est, dans la grandeur permanente. Mais avec ce désaveu du Conseil constitutionnel, C'est pas un désaveu. non, non, c'est pas un désaveu, c'est une décision. Conseil Kaseko, après avec il faut que ñu xam est-ce que am ñu bu ñu demee ñu atte ñu juge bu atte amul désaveu cest dire que atte loolu mooy état de droit te man nee naa bu fekk doon jafe président Macky Sall sukkandiku ci constitution parce que am naa nee naa la article 52 lu nekk ci biir mhm. président Macky Sall mënoon na sukkandiku ci li ko pouvoir constitution jox mu mu ne d'accord uma ci mais defu ko donc par conséquent nañu jàngat loolu xool nag sacrifice yi mu def yëpp parce que président Macky Sall su ko neexoon li yëpp du ko ci fekk ku nga xam ne dafa wàññi mandat am sa parti yëpp sa coalition am ne la demal nga am beneen mandat nga ne defuma ko kooku lu mu ut ay 6 mois ak ay 10 mois. Il avait encore des choses à régler. Et, et, le, le, et comme Djiboka avait l'habitude de le dire, découvrir tous les mystères qui se cachent dans le jeu politique bi ñëw mais euh, ce que ce communiqué du conseil cette décision du conseil a réglé quelque chose ba tey ñu ngi élection yi kenn xamagul kañ que daal mais au moins lu mais au moins au classe politique bépp ngi déglu président de la république. ñu ngi koy déglu. il n'a pas le droit de rater le train de l'histoire cette fois le président n'a jamais raté le train de l'histoire nañ ñu déglu bu ñu yàkkamti il ne faut pas euh, mënoo mbéj mënoo mbéj sàmm te xamoo lu muy walis nañu xaar fi ak ay fan. Mhm. naka la koy dumbee mais le essentiel man li ma bëgg invité toute la classe politique y compris ñu nekk pouvoir comme ñu nekk l' opposition c' une capacité à se à dépassement ñu fàtte yu bëri ay divergence yu bari ay ay lu moo tax le président parle de réconciliation il faut ñun ñëpp ñu fàtte suñu dis divergence fàtte suñu mettre le Sénégal en avant ñu toog waxtaan xool li gën ci ñu def ko. li gën ci Sénégal nag parfois dana nekk sa du baax ci intérêt personnel ça peut arriver mais nga xam ni Sénégal nag moo au-dessus de tout. Ah, et comme le président dans son livre le Sénégal au ça a tout un sens. Ah, processus bi